man bi may ñëw ci kuréel bi mi ngi doon dox mën naa wax ni daanaa ci dem waaye bu ma ñëwaan dama naan ne ci ginnaaw julli bu julli ba pare comme taalibe yëpp ma jóg dem def naa ko yoon du tey nag sama barkeelu dana jiitu waaye damay ñëw julli dem waaye xam nga sëñ Saliou man moo ma yar sëñ Saliou man moo mooy sama lépp waaw moo ma defar moo ma yar tey bu ma toogee tey di wax ak yéen jàkkaarloo yéen may wax ngeen may déglu du man de sëñ Saliou waaw lu leer laa wax moo mën a yar moo mën a yor xajoo ku ne day defar murit ba mu set mu jox borom kookoy sëñ Saliou sëñ Saliou moo bénir moo ñaanal kuréelu julli géej vingt-deuxième édition ku xam vingt deuxième édition vingt deuxième deux plus deux égale quatre mais eh, xam naa di ngeen ne daanukat laa mais seet bu baax rek vingt deuxième édition man ci laa ñëw ci lañ ma jox liggéey waaye pour répondre sa question li nga waxoon sànq maanaam loo gis rek Sëñ Tuubaa tànku kanam la am maanaam day dox di màgg di dox di màgg di dox bis bu jot day gàccal démb waaw ah, loolu la rek 22e édition bi mu ñëwee ah man de wax dëgg yàlla sant naa yàlla ndax bi ma ñëwee fekk naa fi ay membre yu am solo ay kuréel bi takku ci soxna yi soxna sooda xuma jiite leen ci góor yi ñoom sëñ Alioune Badara Cissé nekk fii ak gaay lu ko jiitu ñoom Baye Baba Guèye ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom euh, si euh, Nasirou Touré trois président moo jiitoon man ma ñëw nekk quatrième président numéro quatre ñëwaat kooku lépp man ci sëñ Saliou rek laa ko dugal ba ñëwee daal liggéey ba ma def bi ma ñëwee liggéey ba ma def gis naa ni ñoom ñëpp bég nañu nee nañu daal yokkute am na at ba ca neen nee nañu yokkute am na ah kon alhamdulilah nañ sant rek te xam ne ñoom itam bañ fi nekkee yokkute amoon na noonu lay doxee mën ëllëg mën naa am beneen murit bu ñu demee ba ca kanam loolu la ñuy ñaan mën naa am ma dem ci beneen liggéey beneen murit ñëw yóbbu ko feneen foo xam ne eh, du kii àdduna noonu la kon nag ñi ngi sant yàlla bu baax di wax ne rek eh, te dafa am lu ci nekk parce que sama téléphone bii ma yore 1895 daf maa mës a neex. yàgg na sama code moom laa ko def 21 septembre 1895 waaw tey liggéey bi ndeke boobu ñi am na lu may xëcc waaw loolu moo lay wan ne daal hasard amul hasard amul am na yeneen ak yeneen nag waaye yooyu dama koy denc rek du ma yeneen kii yoo xam ne ay kiiwu biir la waaye maa ngi gis ba ma ko yoree ba tey maa ngi gis ay affaire sëñ bi daal xam naa daal mi maa ngi ciy gis daal mi ngi may mi ngi ñuy won daal xam naa daal nañ rafet njot bu baax mooy li ma doon wax sànq rek ku ci def rek am am naa yàqin ne ku ci def rek danga nga gis waaw ku ci deful nag xaw ma ci yow dara. <laughs> ren daal moom li ma wax rek mooy gën a gën a def rek gën a laxasaayu gën a liggéeyaat lu ñu def rek nañ ko xeeb mooy lii rek ñuy def nii lii daaw amuloon ren ñi ngi di def ko muy innovation ci wet gu ne nañu innové na ñu def na gën a baax la recherche de l'excellence loolu daal laa mën a wax xam naa nag site bi nit ñi ngi ci am xaw tiitaange tuuti ndax travaux yi waaye Ageroute mi ngi sumu wet du ñu rassurer def nañu CDD bi wax nañ ci war nañ cee defaat war nañ defaat yeneen réunion sur le terrain réunion spécial ak Ageroute ba nga xam ne keroog sax commissaire bi commandant bi nee na nii sur nii travaux yi demee sax daf ko gën a dafa gën a dalal xelam ci circulation bi moom ci lu mu wax xam nga ñoom ñoo xam ña ngay defar ñu ngi travailler nag si fi may wax ak yow nii commandant ak samay équipe ñu ngi travailler ci plan de circulation bi moom nee na ñii yëf yi demee ren lay gën a baax kon nag nañu rafet jot ci loolu. waaw thème bi. mooy xamal njëriñu xamal askan bi yëpp àdduna bépp yëpp njëriñal murit bi njëriñam ci société bi ak ci Afrique ak ci àdduna bépp ndax Sëñ Tuubaa dafa ne jamaa al wara maanaam àdduna bépp moom seetul kii katolik la seetul kii yéeféer la seetul kii moom ñëpp Sëñ Tuubaa dafa ñëw pour ràmm ab jamono àdduna ah kon nag loolu la ñu war a xool ñu xamal njariñ li ñu sëñ Tuubaa indil àdduna bi xam ko ndax maa ngi ko doon wax ci benn sama benn interview su ma juumul sëñ gis nga état yi bu ñu jëlee ci enseignement sëñ sax jàmm day am fépp ndax moom c'était l'apport de la non-violence moom jaadul nafsul wax non violence ñëpp buñ defee noonu kon jàmm dina am lii ñuy lii lislaam di def eh, ñuy woote ñuy def ci àdduna bi di wootee loolu du lislaam ah ñun de xamuñu loolu ñun sëñ Tuubaa lii la ñu jàngal ñun daal suñu kurus ak ñaan def li ñu sëñ suñu borom digal moom daal buñ ko defee rek kenn du réer